Assalamualaikum waa Assalamualaikum population wu Koungheul defe naa ne tey tay mbégte la tey bésu la askanu Kungel man Alin badarali Ly maa ngi leen di gërëm di leen sant am mbégte lool tey ci bés bi nga xam ne bés bu spécial la parce que nag tey la Koungheul intégralement fal maire ci dëkk bi nga xam ne mooy suñu dëkk tey amul ko gën a màgg ñu mos am yéene ci dëkk bi yéene boo xam ne mënul woon antu te joxul ñu woon baatu askan wi. batah tax sampon sampoon suñu ndënd laaj askan bi baatam tey askan bi jébbal ñu baatam maa ngi woo képp kuy doomu Koungheul nga ñëw ñu ànd la main dans la main ñu liggéey defar suñu kon amatuma adversaire ci Koungheul bis mi ki tey képp kuy doomu le camp sortant man ñeneen ñi nekkoon compétition ñun ñëpp comme dañu am yéene pour suñu dëkk maa ngi woo ñëpp ñu ñëw ñu ànd mottali yéene boobu ñu am pour suñu dëkk. defe naa ne suñu fédéré suñuy effort Koungheul dina jëm kanam parce que nag tey jongante la woon mais kenn démérité wul kenn ku ci ne rek sa bëgg-bëgg ci Koungheul nga doon fësal. sa bëgg-bëgg ci Koungheul nga doon jëmmal yàlla ci kàttanam ci mbaaxam jox ma ma jël raw gàddu bi loolu nag su ko yàlla defee damay wax ne du sama mérite gënuma fi mënuma fi mais yàlla ci mbaaxam moom miy joxe nguur moom moo ma jox bi ma joxee ma tàllal samay loxo sant ko ci lim ma defal sant ko ci limma ma defal ñaan ko itam mu dolel ñu kàttanal ñu ba dëkk bi nga xamne mo ñu boole jaboté ñu taxawu ko defar ko ba mu nekk dëkk bu ñuy ragné ci biir réew mi may leen ma nak ma sant ay nit sama ay kelifa sant sama yaay Adja Ndioufa Gueye bu baaxa a baax a baax defe naa ne lu ñu mën lu né rek mom la ñaanal aussi sama wayjur bu goor bi nekk ci barsax Yalla yeesal yermande ci ko xarel ko aljana te saraxam yag suñu loxo bu baax a baax a sant aussi bu baax sama soxna parce que vraiment noppale ko wul tawna ba dafa febar sax ndax coono bi mu don daj ci liggéeyu politique bi donc mang koy sant momit bu baax di wax ne rek yalla bu umpale jeriñu ay doomam di sant nak ño xamne ay kilifa len ci man muy papa galle Koulibaly tonto Keba ndir tonto elage Touré grand Bathie Ndaw Pa Badara Diop dam bay tonto Ousmane Ngom dam fay ak ñi nga xamanteni tay motal mais da nga dul do mais da nga dul motal ñepp kilifa yi fi bokon nek ci kurelu sage ma ngi len di sant di len geureum parce que tay lepp li nga xamanteni meun nañ ko def nañ ko mu rafet bu suñu xalaat parce que ñep xam nañ ne ndaw mom vitalité la andal xadar la andal mais sen captain ñun suñu captain len am mais ñom ñoo yoron xam-xam bi doon doxal ni donc ma ngi len di sant bu baax di len geureum di geureum ci di geureum bu baax a baax aussi les Damel ak les Linguère defe naa ne ci électorat wu Koungheul ñooñu dañ ci ràññeeku bu baax a muy nag création bu original boo xam ne tey dañ fësal seen bopp wane ne ñoom it ci lañu tey damay wax ne boo gisee ñi ñu fal damay jàpp ne ndaw ñi la ndaw ñi parce que tey téeméer bo jël rek ñom ñoy juroom benn fukk yi ak juroom bi ñu ma wone kanam and ak man ci la am yaqeen ke ne dinañ gañ tay kon ma ngi leen di sant ñom ñep toute la jeunesse intégralement di remercier aussi la team Badouli moy ñi nga xamne ne ñoo mankoon bi ngànkoon bi doon ko doxal ci rewaye

muy ñoom Pape Ndongo muy ñoom El Hadj Ali Ndaw ak Dramé Thiam Aline Sène grand frère bi moom it desul ginnaaw ci mbir mi vraiment bay na waalam ci mbir mi bu baax a baax a baax a baax a baax Mamadou Ndiaye desul ginnaaw Tafa Gajaga Modou Thiaw animu sànq bi ma toogee gisuma ko rek dama am jaaxle dama ne gars yi dem leen wëral ma Thiaw parce que xam naa ni mu xëree ci man buñ ko wari jiwul mun na nekk ci biti bi ñu annoncé victoire bi rek mu xam kon moom it vraiment suñu grand la kenn la ci ñun di remercier waa MFO parce que ñoom it jàpp nañ ci combat bi di remercier madame la coordonnatrice des femmes madame Ndeye Binta Dramé Ndeye Binta dañu tàmbali ak yow rek yàlla na yàlla yeggali suñu yéene ci yow parce que nag kenn nga ci ñun jàpp nga liggéey nga di remercier aussi Kiné ne ni mu koy waxee bi kenn ñemewulee moom moo ñëw fekk suñu ànd ak ñun moom it vraiment remercier neen ko sant neen ko gërëm neen remercier suñu yaay mère Awa remercier tout le monde vraiment am na ay ndaw yu ñëw aussi bi ñu nekkee ci mbir mi bay waaj a yegg si

ñoom ak ñeneen ñi jóge feneen yëpp ñëw ci ñun ñu leen di gërëm di leen sant di remercier nag la jeunesse à travers Pape Aline Sarr Ali Mbengue vraiment seen liggéey wane ngeen ko ba mu mot sëkk defe naa ne yéen ay jàmbaar ngeen ci liggéey bi ku leen xam-xam leen ci gëm Aline Badara kon yéen tamit maa ngi leen di sant leen gërëm di remercier aussi bu baax a baax Pamas sam moom it vraiment kenn la ci suñuy Baay Faal ñu koy gërëm di ko sant di remercier nag aussi di jël remerciement bi di ko teg ci loxo Alpha Oumar Diallo mu jottalil ma ko taximan yëpp vraiment ñoom it desuñ ginnaaw ci combat bi remercier ñi nga xamné aussi ñoo yoron animation bi durant toute la campagne moy ñom Fatimor ñom Gas Mbour ñom besum ñom Semu ñom Dumbia Dumbia ak vieux Dumbia Dumbia tambour major Dumbia vieux Dumbia animateur remercier aussi Samba Touré mi nga xamné ne moo sen mentor di len remercier ya, yeen ñëpp ci sen taxaway di remercier Fanta ya, Senghor ci taxawayam ci Linguère momit mang koy ya remercier sama six boy nak duma len remercier sama six boy ñom dañu bok ci man te jiga di wuñ ma juróom ben len won ñew ci man ne ma ñun six boy grand fo dugu ñu dugu fa tay six boy yaa ngi nii taxaw màgg te nak six boy yi tey bi ñu wane nañ ne Alioune Badara seen territoire maa ngi leen di remercier bu baax a baax di remercier suñu yaay yi doon ànd ak ñun yëpp bàyyiwuñ kenn remercier étudiants yi jógee Ndar Bambey Thiès Dakar Kaolack ñëw jàppale ñu ci combat bi ñoom it naa leen sant bref maa ngi remercier toute la population de Koungheul intégrale di wax ne am nañu mbégte lool tey. ci bés bii encourager aussi ki nga xamante ni mooy le maire sortant monsieur Mayacine Camara kii n'a pas vraiment démérité jongante leen woon dañ def jongante nen jongante nag tekkiwul non non sama mag la mag la moo xam ne am naa respect ci moom am naa considération ci moom maa ngi koy sant di ko gërëm pour lu mos a liggéeyal Koungheul yëpp ñun nag yàlla moo ñu jox ñun tamit ñu war a ñëw doxal di leen def suñu partition

may len ma aussi me remercier ñi nga xamné ne samay employé len nek sama direction déplacé wu ñom ñep ñew dolel ma ci campagne bi ma ngi len di gëreum di len sant ñi ñëwoon ñi ñëwul ñi ñëwul sen xel a fi amon len yene ñëw donc ñom ñep ma ngi len di remercier bu baaxa a baaxa a baax a di remercier Lamine Diallo Lamine Diallo fofu la yem duma duma développer nak Elage merci yowit kenn nga ci ñun defé na né gaay dañ la sampalon gëta pën sa fan yépp mais dama la né yow fu may tëdd ngay tëdd parce que buma kenn laal parce que damay bañ sobel mere ma <laughs> jërëjëf jërëjëf vraiment content na trop quoi xol sedd na ma jaw mbeng cerno jaw momit dessul ginnaw ci ñu mujjé ñew la mais ci ñu gëna a ràññeeku la bok donc maa ngi koy sant diko gëreum Ali job yéen ak ñoom Cheikh Mbacke yépp gis na sen taxaway Vraiment, Biran Kairé, mention spéciale. Il est venu avec ses étudiants comme d'habitude et il a vraiment assuré. Biran, merci, merci mille fois. Sécurité Binak, Nyomit, chapeau. Vraiment, content Pendant ces 15 jours, vous avez pu assurer, malgré le stress, malgré des fois, mais tout le temps, vous avez dal, gérer. Je eh, suis entièrement satisfait eh, de votre participation eh, au niveau de cette campagne. aussi marul mère Aïcha allez maman Aïcha allez maman Aïcha maman Aïcha yow gis sa te di gis nañ li ñu indil gis nañ fi ñu yóbbu ñu ngi lay sant di la gërëm jërëjëf di sant kilifa diine Koungheul yépp bàyyiwuma kenn di jël cant gi di ko teg ci loxo imam ratib Moustapha Diop muy suñu papa suñu maam ñëw jàppale ñu def lu ne ci ñun dinaa sant itam kenn koo xam ne vraiment bi mu jàppee ba léegi bàyyiwul te vraiment jàppale nañu ci fànn yëpp jàppale nañu ci fànn yëpp ci zahir ci baatin muy suñu tonton suñu papa Aji Khady Seck moom vraiment muy moom muy soxnaam yi doomam yi jógee ba Italie ñëw jóge États-Unis ñëw ñoom ñëpp ñu jàpp ci campagne bi buñ ne jàpp nag waxuñ ñëw rek ànd ak ñun dem mais di yëkkati seen alal di ci def saasu kon ñoom tamit maa ngi leen di gërëm di leen sant bu baax vraiment ci seen taxawaay di gërëm meer Ndioba Loum di gërëm maire Ndioba Loum moom it gis nañ taxawaayam suñu wet gis nañ lim ñu indil ñu ngi koy gërëm di ko sant di ko ne moom suñu yaay la incha allah fekk fuñ jëm fu ne dinañu fa gunge.